Maktoum Prod yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw salé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bayiko. ko jëf Ma ngi sant buur bi nga xamni lu mu yëkëti mo la daaneel Sétal lolu. Lolu junj la hmm? moo da dafa yemal won mbiram ci mbég nekk rëy rëy rëy rëy mu dee boppam rek yemale boppam ci naqar lu naqar rëy rëy rëy rëy mu téye boppam rek bu naqar amul mbég amul mu yemale boppam rek ñetti xew-xew yi yar ci waa këram yëpp bu ñu ñëwee ne ko yàlla indi ne xéewal mu ne alhamdulillahi almunaim almutafadil mu jeex tàkk yàlla ko indi sant na ko jeex na tak bu ñu demee ñëw ni ko yàlla indi na musiba mu ne alhamdulilahi ala kulli haal jeexal amatul lum ciy naqar bu ñu xëyee ñëpp ñëw mu ne dara xewul ñu ne ko jàmm xewul ay xewul mu ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ba waaye mbég ñëw su buntu kër sëriñ ñu dégg la yaa ngay dóor pas <laughs> jox ma loxo bi waaye dóor ñi loolu tegtal la ci ni yow xamuloo luy mbég xew-xew la rekk ëpp ko waaw wala xew na war la naqadi nga ñëw di xool bëti xale bu tuuti tey mag xamatoo sax looy def mel na bëy wuréer loolu tegtal la ci ne xamuloon naqar xew-xew la rek ëppul xew-xew yooyu yëpp di ci bàyyi xel dafa am solo bu ko moy rek nag tabarkalla musiba dal di am et bi ci des ah. bi ci des mooy yonent bi dafa xëy rekk ni sib naa laaj laaj yi ñoo lekk yahud yi ñëw di ko ndax dafa xaram mu ni déedéet xaramul eh, ñu ni ko gaawe nga sa làmmiñ parce am na ñoo xam ne ci dañuy dund te it laaj jaamu yàlla la comme jaamu yàlla la te yàlla wàccewul benn aye pour wax la ni xaram na boo ko xaraamalee tooñ nga laaj tooñ nga ñi ko dund ñi ko bay di ko jaay di ci dundal seen njaboot tooñ nga leen mu nekk ay wu day nañ ne Eh, yonent bi wax leen ni xet gi la wax wante laaj ci boppam waxu coow li bare ba mu delloo ko ci wàllu tarbiya ngir layal boppam maanaam ki ko lekk wara a dem ci mbooloo te bu xeeñee mbooloo mi lor leen moom a tax di wax kon xet gi la laa wax de waxuma doomu laaj jaamu yàlla la sañuma ko bon clip am na ñu ciy dund sañu ma ko bon ñu ni nag xet de taxawaayu lan la tax ci wax ba léegi ñu nga ci payi pour wax la kàddu kilifa na mu toll yow temps bu la neexee nag nga génne sa kàddu kilifa ci lu jaadu moo tax góor gi daan na di wax ni bu mu daan nekk ci saal bi bu ma nit soxlaatee di wax ak man soxlaam bu leen ko taxawu te xam na ci ñoo xam ni seen gémmiñ ak sama nopp rekk lañ te soxla te bu ngeen ko taxawoo du leen mën a dàq mën duma leen mën a dàq xam na loo xam ne wala fu mënu ko bu ko defee ngeen dégg soxlaam te xaw ma dana ñoŋ wala du ñoŋ moo tax nekk ci kër kilifa yombul fokk ngay xaw a sàcc di di di di teeylu la war a am ak la waru waaw waaw ba tax na ñu jéem ci bàyyi xel ngir yàlla ak sunu barke sëriñ di jéem di yaraat sunu bopp jéem di xàmme ni kër gi dencuwaayu jàmbur la nun ñépp looloo nu fi indi waaw nun ñii ngeen ni nooy seen doomu sëriñ looloo nu fi indi waaw ah te it la sëriñ Babacar waxoon sama pay la si Abdoul yàlla daf ko wër sa doom bu góor ca Ndar mu yónnee si laaj si góor gi tur te góor gi fas ko yéenee tuddee sama pay la si Mansour ndax ñoom noonu lañ daan jëfante mu ne ah kër gi de la bu góor juddoo ñu barkeloo ko ci turu yonent bi bu dee jigéen ñu barkeloo ko ci turu sitna Fatima loolu moo xew ci kër gi comme nag góor la te Alaaji Mansour turu yonent bi la amee te doomu sëriñam la na ko ko tudde waaw waxul ni mook mooma bokk daf ni doomu sëriñam la

waaw maa ko jëkk a yëg maa ko jëkk nettali baaxul waaw maa ko jëkk yëg maa ko jëkk nettali baaxul te léegi sëriñ Abdu defe ne xanaa yàlla bu ci dema ànd ak dara waaw te mu ñëw Dakar mu ni ko diw jóge ne Tiwaawan ba ñëw fi nettali nangam kër sangam bu mu ko defati ngeen bëgg xabaar bu mu ëpp baaxul waaw bëgg xabaar bu mu ëpp baaxul ndax itam am na sunu benn way jur mu di sëriñ njaasaan si di lamin kunta ku neexoon la ku sempaloon la waaye it ku sañoon la ci waxtaanin ak waxit sëriñ Abdou mii moo daan dox sama digganteeg moom léeg-léeg nu werante mu ne sëriñ Abdou soo demee neel Cheikh yee naa ko de waaw ku neexoon la dama dem këram ci diggu bëccëg ca Njaasaan fekk ma war a dem Ndakaar wax Abdul Aziz mii ni ko waxal Cheikh ni ko war nañu gisi ma dem këram ba ñëw toog mu ni ma mbaa yàkkam ma ni ko bëccëg bi kay yaa ko moom ñu toog toog toog di waxtaan ku neex la na ku mën a jame la waa jame rek yëfu doomu soxna daf ko neex góor gi mës na fa yebal ay nit pour ñu jàng kaamil waaye daf leen jàpp ba bëggatuñu sax dund lu ne mu laaj leen bu ñu waxee mu ni juum ngeen waay xamu leen yoon wi fa mu jaar waaw ku neexoon la ku sañ waaye ku simple la nag tabarkal la borom may piir la tabarkal la ñu toog nag di waxtaan ñu ma toogal ma ni ko bëccëg bi yëpp yaa ko moom Maktoum Prod. yéen ñi aboné gul leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.